parce mbiri sëñ Touba man bi ma commencé ñëw fii ak léegi daanaka affaire bi daal escalier la day yokk parce que année bu ñëw ñun lu ñu indi année bi di ñëw bëggatuñ ko gisaat dañuy innover dañuy indi lu bees lu bees dañu bëgg a teg waaw li ñuy wax ci mbiram daal gëm naa ko quoi. fii li ngay gis nii yëpp kii ay viennagerie la. mom lañu yok yu ci bari sax bo xolé amna yo xamné ñewul won ren mok salé la ngay gis dañu changer rek bo ñewate fi dewen bo moytul yenen xet ngay gisat encore. suba lenen suba benen bëss la suba moy bëss bi nag waaw. ah suba benen bëss la suba yëfi jambur la suba lo fi fekk rek xamal la borom moko fi tayal borom ah ñu ngi leen di fay di am rek di ti yalla di julli ci yonent alayhi di wax jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di sant Serigne Saliou mbakke ndax kër gi ñu nekk day kër Serigne Saliou ndax kër gi Sëñ Blaat moo ko léemu ki nga xamante ni bi El Hadj Babacar Kébé demee moom la fi bàyyi ci wanagu Sëñ Saliou la defee lépp muy soxna Mati Abdourahmane waajur soxna Waalo ak si Moussa Saliou kooku mooy soxna moom i natu Kébé ñu ñëw nag tey màggal Touba 2024. la daan xew xewati na surprise bi mu def at mu jot mu wane ne sëñ bi kat lépp loo koy defal na yokk bi fi bii ak cocktail boo gisee bagage da ngay xam ne soxna Mouminatou Kébé li ñëpp war a def mooy ku yoon wi ñor màggal gi ñor la war ngaa xam ne am na loo ca bëggoon a def te xañ na boo ko manet mënoo ko defe nam ko defee ndax sa yitte mënal ko bañ a may waaye moom def na yitteem yëpp ci màggal Tuubaa loolu daal laa gis man bu weeru teroo mu ñëw Touba màggal gi bu weeru teroo la koy tàmbali 18 safar fukki fan ak juróom-ñett sëñ bi ni gileem ba ganaar bu kenn bàyyi dara lépp luy benn soxna moom dana ko def ba pare boole coog ñi nga xam ne mënaluñ seen bopp ñuy toj ay nag di ko def ci ay paani ndawal di ko yëkkat di leen ko yóbbu ñuy màggal seenu màggal kon day màggal ci kër gi màggalaale ñi ci bit di joxe ay paas. di def ay teraanga di teral jànkat xasaayid téere bi nga xamante ne sëñ bi lu muy def ci la koy tàmbale muy alxuraanul karim yaa kitaabal karimi anta bii bi téere boobu xam ne sëñ bi def ko fonk tàmbalewul ci lenn teg ci alxuraan sëñ bi léppam ci alxuraan lay ubbee lay ubbee màggal gi bu subaa bu ñuy jàng xarnu bi da ngay gis sëñ Abdoulaye Tege ñëw toog sol bu moo xam nag doomi sëñ Bamba ko joxoon moom la ñuy tëjee bi suba kon suba incha allah àjjuma la ñuy tëj di am mbégte lool di bég ci site bi. waa sama diggante soxna si taxawaay bi loolu yàgg na ndax nit bu ngeen àndee ñu xam la moom nga féete moom mu teral la baat na bépp yëg ko loo man ci moom def ko te xeeb ko teraanga na mu torom mu jëndal nit oto yóbbu ko màkk njëkk wañu million may ma bërki dem li xew ci man àdduna bépp di ko dégg mooy sama waajuru góor nelaw moo fa njëkk kooku mooy sonn mooy lottu kenn ñu am mbégte loolu yéen di leen ñaan ndax presse bi lu baax des koy wane ndax ñi koy gis man cee royee ndax roy lu baax waa ñuul dara ndax média bi dañuy soññ jàmbaar des koy soññ bu jàmbaar yemee yembar kon jàmbaar lan lan lay jar loolu mu jar jàmbaar dafa war dégg jërëjëf ndax yembar am gàcce jàmbaar jërëjëf jàmbaar wërtëf bokk jërëjëf yembar jàmbaar bu jëfee nañ ko wax jërëjëf jërëjëf merci beaucoup